ñu ngi suñu loxo rek suñu borom waxtu wi nag waxtu ñaan la kon ñu ngi tàllal suñu borom di ko ñaan mu defal ñu ak mucc defal ko njaboot gi defal ko àdduna defal ko bépp jurit ginaaw loolu tey mbokk jurit yi ñu bëggoon a waxtaane loo xam ni dafa mel ni mooy période bi gën a ëpp solo ci dundu doomu aadama muy ak ngone ngone nag dafay loo xam ni fi la nit ki ndax suñu borom dafa wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax dafa wax ni bépp doomu aadama bu ñuy buy juddu dafay ñëw set wicc moom lañuy ñu woo al nga xam ni du indaale dara day set wicc lislaam ay nekk ci moom gëm yàlla nekk ci moom ndax loolu la ko yàlla bind ca cosaan waaye fa yi nekk nag moo koy sopp ak fu mu mën di jóge lu foofu baax baax barab ba mu nekk mën na koo soppi yóbbu ko sab safaan fa mu fa mu jóge lu mu doy waar doy waar barab ba mu nekk mën na ko faa jële ko ci lu baax te sell te yiw kon mooy waxtu wi gën am solo ci doomu aadama suñ borom nag jël xale dénk ko aw nit ña ca njëkk muy ndey ak bàyyi ñu ñu sant leen li njëkk ci moom muy tabax ko tabax ko nag mooy defal xale bi mu am personnalité personnalité mooy ni ci mel façon am ak ni muy doxe ak ni muy waxe ni mu mel ni muy gise ni muy jàppe ni muy xalaate yu bare bari na yoo xam ni moom la ñuy woowee personnalité ci doomu aadama boobu nag jubbanti ko defar ko mu jub mooy rôlu waajur yi buñ ko defut it safaan ba mooy am mooy xale bi jaar ci aw ñal yàlla nañ ci yàlla musal yar gone yi nag mooy jubbanti leen ba seen personnel ci nekk bu baax te méngoo ak li nga xam ne moom la lislaam santaane te yàlla bëgg ko ci doomu aadama mooy li gën ci moom ñu responsabilité la boo xam ne ñaari waajur yëpp ñoo ko bokk am muy lay ji di bàyyi bi kenn ku nekk am loo ci war a def kenn ku nekk da am lu la ci lislaam sant boo ko defut mu am lu ca sooxe lu dul mu nekk ci situation boo xam ne nit ki dafay euh, dafa génn te fa mu nekk xëy na la mu fay amee moo moo moo war a dundal njaboot bi yu mel noonu situation yu mel noonu rek mooy tax mbir mi wàcc kenn ki war ka ca des waaye mënu leen a wàcc ñoom ñaar ñëpp euh, doomu aadama nag ñaari mbir moo ko composé muy aw yaram mooy li ngay gis muy jëmm ji waaye seetlu ngeen ni jëmm jooju lu mu rafet rafet lu mu sell sell bis dina ñëw ñu jël ko gas am pax dugal ko ci biir suul ko kon la tax doomu bi nekk doomu aadama dëgg-dëgg ba nit ñi di ko boole ci nit ñi loola mooy la ëpp dox la ëpp solo ci doomu aadama bi muy ruuxam kon ñaar yëpp nag ñoo mat a bàyyi xel ñoo mat a sàmm muy yaram wi sàmm yi ruux kon ngir defar xale bi li may wax nag mooy gone bu tuutee tuuti gi doog a juddu di doo ko tàmbali di doog a xàmmee foofu la ñuy tàmbalee bala bala bala muy sori kon ñaari ñaari aspect la benn bu njëkk bi mooy yaram wi toppatoo ko ak la ca topp mooy ruux gi ak yar ko sàmm ko jubbanti ko jubal ko dafa mel ni nag ñu bari ci nit ñi boo seetloo wàll gii ma njëkk a wax mooy yaram wi moom lañ gën a jox yitte moom xale bi moom dinañ fexe ba du xiif lu mu laaj it ñu ñu fexe ba daw dem wuti ji ko indi bu ñu jënd mbubb it duñ dem sax jënd ñi ñi ko ci man duñ jënd mbubb mu mbubb mu yamambaay waye dañuy dem seet mbund mbub mi nga xamni mo tollok tolloog seen doole euh buñuy seet dañuy seet mbub mo xamni xeyna man na am sax buy jël juroomi témer ci wet yooyu ñu mëna am ñaari jooni bu ñaari jooni ba la jënd jox ko jox ko seenu njabot loolu dara nekk ci euh, bu andé ak boole ci ak yar yar yar yar yar ruuxu doom aadama bi kon yaram mi mom nit ñang ci bayyi xel ñu bari am sax ño xamni loolu fekkulen ci waye ñu bari ñiko man ñu ngi bàyyi xel ci yaramu gone gi du tilim du taxu du xiif du mar loolu benn la ci responsabilité yi responsabilité yi waajur yi mu am nag responsabilité bu ëpp boobu bu ko gën a am doole te ñu war koo bàyyi xel lool mooy yar ko ci ak ngëm bu wér yar ko ci ay jikko yu baax yar ko ci melokaan ak comportement boo xamante ni dina mën a nekk société bi waaye dina bokk ci ñi jiite société bi loolu nag lu ñuy waajalee doomu aadama bi ne te soo jëlee benn wàll bi muy wàllu yaram wi lu mu laaj nga jox ko ko ruux gi nga nga nga bàyyi ko noonu na la leer ni rajo yi ak télé yi ak yi nga xam ni moo xew léegi muy internet ak yu mel noonu bu soobee yàlla moom loolu ndax foofu loolu dafa aj dafa war a dund te bu bu dundul doomu aadama bi faatu muy ruuxam ruux googu nag bu fekkee ni defoo ca la ca war a nekk leneen mooy leneen mooy jóge fële dugg ca biir te xam ngeen ni yooyu di média yi ak euh, yu mel noonu technologie yu bees yi ak yi ñuy indi bari na ci yoo xam ni bu ñu ko orienté wul rek mën naa indi musiba ci gone yaakaar naa ay misaal yu bare bari am ngeen ko jamono yii ñu weesu rek gis ngeen yuy xew ci ci réew mi te xam ngeen ni

waaye it nag bu ruuxam rafle te ruux gu rafle mooy ruux goo xamante ni imaan nekku ca ruux gu rafle mooy ruux goo xamante ni jikko yu rafet nekku ca ruux gu rafle mooy ruux goo xamante ni xamaluñ ko yàlla xamaluñ ko xamaluñ ko boppam kon gis nga lislaam dafa bàyyi xel bu baax a baax gone bi muy tàmbali bu tàmbalee xàmmee rek daf lay wax ne la góor ak jigéen tàggale leen ñoom ñaar misaal rek laa lay jox ne la góor ak jigéen ñu eggone xàmmeeguñu dara mun la tàggalil ñoom ñoom ñaar buñ bokk fu ñu tëdd loolu dafa am lu muy yar ci moom am loo xam ne daf ko koy bàyyi loo xel bu ñu demee nag bari na ci kër yi ñoo xamante ne yooyu sax duñ ci bàyyi xel léegi am na ci ñoo xam ne ñàkk koo man moo waral euh, daanaka ñaari néeg la ñu am bu ko defee xale yu góor yaa yu jigéen xale yi daal ñuy tëdd ci benn néeg bi euh, mag ñu tëdd ci benn néeg muy muy jafe-jafe boo xamante ne lu ne mën na caa juddoo te te loolu loolu may wax noonu lu am la ci réew mi am na ci ñoo xam ne nag mën nañ ko sax waaye dañ cee bàyyiwul xel bu ko defee yooyu dafay mat a bàyyi xel lislaam dafay dafay tàmbali former nit ki li mu bëgg mu am ci moom ca ca tàmbali ba fa la koy tàmbalee euh, ngay yow yow miy waajuram mu sàkk ci yow nga bàyyi ko xel bu baax a baax kon loolu yu bare bari yi ñuy dugg ci yi société bi di nekk di ay jafe-jafe ñàkk gee waajal gone yi rek moo ko waral bu ko defee yar boobu kon ni ma ko waxee dafay lu am farata dafay loo xam ni mën na ñàkk ñu jël ñaari aspect yëpp nag benn bi mu yaram bi bi ci des mooy ruux gi ruux gi nag moom lañ gën a néewal te moo gën a tax ñuy wax bokk na ci li nga xam ne moo ñuy dimbali ci ñu mën a am gone yoo xam ni bu ñu noppee dinañu am personnalité yu wér di ay jurit yu wér yoo xam ni xam nañ li yàlla li leen yàlla digal ñu nekk ci li leen yàlla tere ñu bayyi ko ba ca njëkk mooy mu am ñu am yërmaane nag ci ñoom ndax gone mooy bindaafoon boo xam ni li nga ko digal ak li nga koy tere li koy jariñ ak li koy lor moom xàmmewu ko bu ko defee li nga ko digal léegi boo ko ko expliqué ba noppi mën naa bàyyi man mën na caa mën na caa nekkal mën nga koo tere léegi wax ak moom ba bàyyi booy génn rek mu daal cee nekkal te loolu du ak yab la wala di la fontoo waaye bi moom ci boppam moom la yàlla moom la suñu borom bind noonu il faut que muy tester di essayer di xool di seetal boppam bu ko defee nag kon ki nga xam ni moo ko yor di ko yar il faut que mu bàyyi xel loolu ànd ak yërmande di ko won cofeel ci kaw loolu ci rek la ci loolu rek la mën a communiquer ak moom ba mën a ba mën a am résultat bu baax du ñu bari niñ ko yaakaare ni yar gone il faut que yor yorub yar tey dóor loolu yonente bi sallallahu alayhi wa mas naa yëkkati ab sëtam muy kenn ci ñoom Xasan wala Xuseyn euh, fóon ko am ci benn saxaaba bu ko xool yéemu ni ko man de ah loolu da ngay def lii man de am naa fukki doom yoo xam ne mosuma séq ak ñoom lii mosuma yëkkati sama la ma fóon ci kenn ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko geesu ne ko ku dul yërëmaate suñu borom du la yërëm kon yërmaande suñu diggante ak gone yi mooy tax li ñu bëgg ci ñoom ñu man koo am mooy di njëkk te loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ni mu foore te xam ngeen ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fonke ak cër bi ko lislaam jox iqaamu e, shahadat an la ilaha illallah mooy premier mooy e, ponk bu njëkk bi ñaareelu ponk bi mooy julli te julli sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko daan def ay gone bi tëb di dal ci kawam ay ay sëtam muy xasan ak xuseyn bu sëggee ñu sëgg ci kawam bu siggee mu sigg ñu sigg ci kawam te loolu du ko teree nekk ci lam nekk te bu paree du leen du leen kon nga gis ni mu leen jegeree woon boppam ni mu leen miinale woon boppam ni mu leen bëggee woon ni mu leen fonke woon ba gone yi ci boppam di ko roy di ko xool kon loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax loolu nag xaw naa wuti tuuti ak ñun suñu culture ak ni ñu yare dafa mel ni waajur dafa war a yor aw melokaan boo xam ni day kanam gi day fasu mu yorub yatam fu mu fu mu ne tëll gone yi daw loolu wute na ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale Euh, bari na sax ci moo wax ko ci barab yi nga xam ni fi la ñuy jëlee daara yeeg yu mel noonu day kanam bi day fasu mu yorub yatam fu mu fu mu ne tëll gone yi daw loolu wute na ak li yonent bi sallallahu alayhi euh, bari na sax ci moo wax ko ci barab yi nga xam ni fi la ñuy jëlee daara yeeg yu mel noonu am na ci sëriñ daara yoo xamante ne bu ñu taxawee bu ñu nee fël fi ñu nekk rek gone yi gone yi tasaaroo lu ñu mënoon di def rek dañ koy bàyyi dañuy dañuy daal di xam nga nag loolu dafa mel ni yow li nga bëgg a def ci gone yi ngir nga mën koo def ci ñoom dëgg-dëgg il faut que ñu ñeme la ñeme la nag bokkut ak yam la loolu nag il faut ñu bàyyi ko xel euh, il faut que ñu nga bàyyi gone yi ñu la ñu mën a ñëw ci ñoom ñu mën a ñëw ci yow bu ñu soxla wax la bu ñu jaaxlee ñëw wax la waaye bu bu gone yi ragalee nga xam ni jàngal alit boo koy wax gone gi ak yat bi ñooy ànd xam nga loolu tamit dafa xaw a doy waar loolu it méthode la boo xam ne du mat a bàyyi xel dóor gone desul wax ni dóor dóor gone araam na ndax dina egg di nga egg gone egg gone mën naa egg foo xamante ne xëy na jëfandikoo ab yar mën naa mën naa mën naa nekk saafara xëy na loolu sa situation extrême lay doon waaye euh, mëru warul nekk moom lu wér te mooy dóor gone mënta nekk loo xam ne mooy méthode bi nga xam moom lañ jël muy obligatoirement rek loolu lañu war a def ngir ngir gone gi war a yaru ngir gone gi war a xam loolu nag euh, xam naa waxtaan mu gudd lay doon te yaatu ngir ñu bari mën a soppi mën a soppi loolu surtout nag ñiy jàngale ñuy jàng ak jàngale surtout ñi nga xam ne ñooy jàngale alxuraan loolu lu mat a bàyyi xel bu baax a baax euh, te nit jàng na alxuraan ba noppi mokkal ko mokkalin wu rafet te ak yar ak yar mu sa tege ci ab tam ci ndodd kon yërmaande ji dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax la ci topp mooy euh, fexe ba gone yi dafa am dafa dañuy wuute ñu bare bari lañ personnalité dañuy wuute personnalité yooyu nag yow mi nga xam ne yow lañ dénk ñooñ yow ngay waajur wala ngay ab yarkat personnalité yooyu il faut nga bàyyi ko xel benn bu ci nekk it nga jëf na ngay jëflanteeg moom du bokk ak ni ngay jëflanteeg ka ca des gone gi nga xam goo xamante ni fi ne dafay judd rek nga seetlu ko xam ne kii dafa bari kersa dafay am gone gi bari kersa boo ko gëddee ci mbooloo def ko def ko benn yoon ñaar ñaari yoon da ngay mel ni ku koy tëj day mel ni luy ubbeeku nga tëj waaw du moom mënatoo koo jariñoo te foo ko séenatee rek looy wax moom li muy ragal mooy nga gëdd ko te te te def nga ko defati nga ko léegi jeex na mënatoo amati ci moom dara bu ko defee kon personnalité gone yi dañ ko war a bàyyi xel loolu ab yarkat bu ne war nga bàyyi xel yu mel noonu am na gone koo xam ne dafa ragal maanaam noonu la ko yàlla bindee dafa ragal ragal ba nga xam ni bu moom ay moromam sax ñi ma wut a nekk ak ñoom am na gone goo xam ne da nga koy seetlu moom day bëgg di beru gone yooyu yëpp nag dañu war a détecté parce que beru baaxul kon dañu leen war a boole ci biir gone yi waaye de su leen forcé ci ñëwal ñëw ci biir mbooloo mi déedéet seetal ci biir mbooloo mi ñaar wala ñett ñoo xamante ni wóor na leen ñi ay xaritam lañ nga fexe ba fuñ toog ñu fekk leen fa wala ñu fekk ko fa bu ko defee yu mel noonu day dafay di nga am li nga bëgg ci gone gi te du egg ci moom ak violence kon jubal gone ak jubal mag ñoo yam ci benn loxo rek la nekk mooy loxol suñu borom li war waajur wi nag mooy def waru garab mooy jubbanti léeg-léeg nag nga àgg ci gone goo xamante ni daf lay wóor ni gone gi li ñuy wax ne gone gi dafa tëg am na gone yu doy waar waaye loolu bu mu tax nga nga génn cadre bi bi ma wax bi ma wax nii ndax gone weesuwul soppeeku te bari na fi mag ñi ñuy tudd bi ñuy nekk gone ba bi ñuy am fukki at ak nangam et seenu léegi bu ñu la ko nettalee nga yaakaar ni loolu moom mënta nekk kon euh, nëng teg gone nan ni ni ñuy jëflanteeg moom mooy ànd ak ni ma ko te akompanye tey accompagner goné gi waye bu ko rejeté mu bis bu ko rejeté ñak ñu ko moy waral goné gi jek jek mu yag rek genn kër gi dem yonam nek ci yenen yenen, yenen même goné gi egg ci di genn kër gi sax di dem bis bu delu ci waté bu xalam delu ci waté bu ñëwé fat ko ci kër gi bu xalam del génnaatee mu dem nga téye téye mu lan bu delu ci waté fat ko mën na mën na dem ba te waxtané na fia yakarna barki dem rek ci ni yërmaane suñu borom doomu adama goru ko wekk mukk diggante ak borom yaakar ni li yakuna te du defaru loolu suñu borom daf ko aramal ci diggante bokku na ci ñent yi gëna mag ci ay bakkar ci diggante nit ki ak borom kon loolu lu mata bayyi xel ñettel ba mo yow mi nga xamni da ngay yar xam nga di ngeen gone yi euh, nit ki wajuram dafay dafay am lu bëree bëri lu muy bàyyi ci moom dafay jël ba ci waxin bi day jël ci toogin bi day jël ci sax ni waajur wi di xoole ak yu mel noonu loolu nag fi ne ñu bëri dañu yaakaar ni am na ci yoo xam ne daf nit daf waaye lu ci bëree bëri du donn maanaam ci yar bi bi ñu koy yar muy gone ci la lay seet léeg-léeg da ngay ni ngay lekke sax da ngay jekk yàgg rek sa doom di defe noonu te yow jàngaloo ko parce que moom ko xam yàlla daf koo def defal tawféex mu mën a set ci kaw loolu ci la yaroo bu ko defee yow mi nga xam ne yaa koy yar bu dee dëgguwoo bëgg mu dëgg dina jafe bu dee loo ko dig danga koy nax ngir mu màgg di sàmm kàddoom dina jafe ci moom te yooyu nag ay affaire la yu sew a sew sax yoo xam ni duñ ci bàyyi xel fi ne léeg-léeg sa doom euh, di jàng nga ne ko lul boo mokkale alxuraan dinaa la defal nangam xale bi di góorgóorlu gis nga juróomi at yam def ca daara ji amul bis bu mu fàtte loolu ma ko waxoon bis bu demee ba mokkal nag ñëw bu ne laa bàyyi mokkal naa la muy xaar ci yow mooy kado ba ma la waxoon de mu ngi nii bu nee tekk defoo ko mu ni tekk defoo ko ba ba mu def diir bu la ñimee dina la ko laaj bu la ñimewu danaan teel waaye nag rey nga ci moom loo xam ni moom du dañati mooy lu la nit dig amul solo moom kàddoom moom mën na la koo jox du am amul amul problème de toutes les façons li ma la wax tey bu subaa mën naa cee génnaat euh, kon yooyu nag yu yu mat a bàyyi xel la yu sew sew ay sew sew la yoo xamante ni ci biir yar bi yow mi nga xam ne yaa yare yow sa bopp dafa war am noo melal sa bopp dëggu wàcce sa bopp euh, tabe euh, li ngay diggee nga koy def ak yu mel noonu yu baree baree bare bare la ci topp mooy dafa dama seetlu ci réew mi ñu ne ñu bari li ñuy jëflanteeg seenu njaboot dafa mel ni dañuy wan seeni gone seen man-man maanaam booy jënd kado wala booy jënd mbubb fi ne tabaskis néew na nga gis gone gu gu solut mbubb mi gën a cher ci mbasin yi muy jës ñun ah am na ci ñu bare bari ci barab yi ñu yaroo ñun gisoon nañ fa ñu bare bare ñoo xam ne seeni i waajur ba ñuy jàng seen i waajur mën nañoo jël dañuy jënd ay basin di ko jëndali nit di jëndi tabaski di ko jëndali nit waaye bu waxtu woowu jotee ñoom mbubb mi gën a woyof lañ leen di jënd wala sax ñeen ko jëndal fanweer li ma gis nag léegi mooy ki ko amul sax day dem lebi ko ngir jëndal ngir jox ko doomam wan ko ni ko man mën naa wala boog li nit ñi di def mën naa ko buy bu ñuy buy inscrire doomam ci école gis naa nit koo xam ni fa muy yóbbu doomam maanaam bu fayee salaire bu fayee école xale bi xaaju salaire am day dem benn doom bu fayee njëgu xale bi la fa jàng xaaju salaire am dem mu la ca des la war a dundee xam nga loolu du man waaye dafa am fu mu bëgg yóbbu ko nekk am na sax góor goo xam ni mas naa ñëw ci man ni ma euh, yor benn xale ci benn école boo xam ne mu ngi fay ñaari junneeg nangam ka des fa mu dem gone ya fay jànge bis bu ñu xëyee seeni waajur ñaari junni ñeen di jox si ñu def seen poos ñenn ñi sax dañuy yor juróom benn junni wala juróom ñaari junni ci benn bis ñuy jàng di dama ko jug mu ni ma sama doom mu ngi ci école boobu ma ne ko ah def lu erreur ndax la la gone gay njëkk jànge foofu mooy yow sa bopp da lay xeeb li tax mu lay xeeb mooy gone yooyu yu nga xam ne ñoom la nekkal kenn ku ci nekk mën ngaa am ñaari junni sa poche te moom bu xëyee cent franc mun ko yor mu nekk foofa day gëm ni moom bàyyi bàyyi ma ko ko teg bu ko defee yow la nga doon wut doo ko am léegi nag moom li muy wut bu ko muy jàng ba am njàngam egg fa mu war a egg bu amee li muy njëkk def mooy génn kër gi dem dem fu sore sore sore ngir taxali ko gépp ndax yow sa bopp da ngay dafa mel ni honte ngay doon ci moom day mel ni dafa lay xeeb yow sa bopp kon nag waajur yi bu ñuy jëfe bu ñuy jëfandikoo ci bokk na ci yar bi mooy ñu bañ a jëfandikoo seen man-man ci seen seeni doom gone gi nga tàmmal lu bari mën a maanaam day dem ba egg ci mën a boo ko joxatee benn dootu day day tuuti ci moom bu ngeen demoon ba yow waajur wu góor yi ak waajur wu jigéen yi yëgoowu leen kenn ku nekk dem xotti mbubb indi bu ngeen demee ba egsi ci kër gi mu wóor leen ni ñaari mbubb a ngi fi denc leen benn ba jox ko beneen waaw ndax moroomam yëpp benn nañ am bu ngeen ko tàmbalee ñaar moom bu tabaski jotatee wala korite moom dootul soloti benn du soloti moom il faut que mu jënd ñaari yëre wala ñetti yëre wala ñeent kon yooyu dafay yu bàyyi xel léegi nag bu ko amee xayrul waaye adduna dafay soppeeku man nga am léegi gis nañ fi ñu ñu yoroon i njaboot tey dañuy lijjanti lu ñu dunde kon boo yoree milliards yi tàmbal sa njaboot dundum milliard bis boo fi jógee milliards yi seey yow sonal nga sa njaboot coono boo xamante ni dootu maanaam bu ñu duggee ci biir boutique yi di agressé bu la yow yaa leen ko teg kon yooyu yu mat a bàyyi xel la euh, yoo xam ni dañ koy bàyyiloo xel doomu aadama li ñuy lekk da ngay seetlu kër yoo xamante ni xale bi maanaam li ñuy wax mbaxalu guddi am na gone yoo xamante ni moom xalatuñ koo lekk waaw ceebu guddi sax xalatuñ koo lekk dañuy wax ni man suñu kër ñoom duñu teg il faut que rek moom bu guddee boo ko mënee boo ko mënul di nga dem uti as coos maanaam loolu lu mu tuuti tuuti rek di nga ko indi teg ñu xam ne lii moom mooy li ñëpp di lekk donte bëriwul sax waaye moom moom la ñuy lekk bu ko defee nag gone gi moom day gëm ni loolu moo war a am